Et les amis de Sport TV, merci encore le gars de la confiance renouvelée, merci le way des likes, merci le way des abonnés, merci également gars hein, de baisser des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Mbok Sénégalais, fait pour les Montenegro, 14 régions du Sénégal. nouvelle Wongal Cup, ñu ngi leen di jaajëfal, ñi nekk également ci lalu hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu yor ak jàmm, ñi nekk ci kaso yi ngeen aussi erreur judiciaire génne leen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen njaboot ñi delluwaat duna suñu borom xale leen ajana fi daw si gars yi te ñu. On avance ensemble dans la magie de Sport TV, l'actualité gars en compte continue actualité ñu fas yéene donc Malick Daf mi tontu Gambie également l'Europe qui commence également de pas voir qu'il lii di Bayern Dominique qui dit donc karambooj nous wax ci waxam wax aussi ci ci Mbaye Diagne loolu lépp la ñu fas yéene ko ak yéen daal mais d'abord, gars yi ah keroog posé une question donc la joueur bon soloon may Barça bi nekk donc la bonne réponse était Carlos Puyol Carlos Puyol donc l'ancien capitaine de l'Espagne mais également du Barça léegi nag laaj bi mooy kii la gars yi bi kan la loolu la ñuy wax léegi tamit également ñi nga xam ne ñuy wa benin euh, benin daal génn nañ tamit ñoom seen euh, liste hein, mi ngi nii garna Rohr mooy seen euh, sélectionneur liste bi nga xam ne mooy jëm tamit toujours si double confrontation bu éliminatoire Coupe d'Afrique yi donc voici la liste du Benin. ki nga xam ne nag gars yi nag mooy <laughs> insolite bi gars yi kii di Richarlison dafa doon moom xam rek c'est voilà nee na saison bu merdique la lay lay def quoi lay dund nii quoi parce que carrément voilà joué wuñ ko ñaari match la def yu baax et tout joué wuñ ko Antonio Conte xam ngeen moom dencul làmminam ci poosam moom ak José Mourinho ñoo am nee ko mais damaa kontaan ci li Richarlison wax ndax Richarlison moom bu boppam bu waxee ne euh, saison bu merdique la def booy seet zéro but la am ci ligue ligue kii League bi ñaari but la dugal sept ans Ligue des Champions donc kay moom mooy yeewu ne euh, merdique la lu merdique la def man kay ba nga koy jaajëfal loolu daal la Antonio Conte tontu léegi nag suñu mbokk sénégalais gambien yi ah donc aussi di jaajëf ñeeg diaspora bi mooy loolu sénégalais gambien yi man daal fi mu ne ay cousin à plaisanter lañ dañoo yabante quoi mais jàmm rek Sénégal ñoom dañoo génne lii <laughs> monument de la renaissance nee nañ mooy monument bu waa Gambie <laughs> never again nee nañ mooy monument bu waa Gambie mais comme je dis c'est de bonne guerre Sénégal Gambie benn bopp la gambi ci biir Sénégal la nekk. n'est-ce pas colonisateurs yi ñoo fi indi yëpp mais ñu yëpp benn lañ donc boo demee Gambie da ngay mel ku nekk Sénégal bu nekkee Sénégal da mi Gambie match la rek day jeex et aussi que le meilleur gagne mais ndam li du génn Sénégal parce que Gambie ci biir Sénégal la nekk ay frères frères lañ ki nga xam ne nag mooy Barthélemy wu gannaaw wàllum guerre bi ñu wax dañ ko guerre arbitre boobu it woon coow bi finalement daan nañ leen daan nañ ci ñeent ans ñoo xam ne bokkoon nañ ci gouvernement Barthélemy wu donc temps yi mu nekkee Barça moom i sax bokk na ci donc corruption la ñu daal di daan wàllum guerre kii tamit également di Benjamin Pavard Benjamin Pavard moom fi ne moom il va sortir du hasard parce que euh, li nga xam ne mooy donc euh, bañ ko jàppee mu màndi woon di dawal donc euh, fi mu ne nii àllarba gi lañ ko war a jugé war a jàkkaarloog yoon xool ban daan lañ koy daan ñoom ñoo jël presque trophée yëpp ren jii ah ca Premier League donc meilleur joueur du mois meilleur entraîneur du mois plus beau oh, sauvetage du mois maanaam ñoom ñett ñëpp muy Doxeya di Ten Hag ak également kii di Rashford maa ngi jégalu sànq maa xala défaite bi leen Liverpool door moo métti moo tax ma naan Tanhag Liverpool mais Tanhag Hag ñëpp xam nañu Manchester la donc c'est juste un lapsus léegi également gars yi ba championnat bi commencé commencé ba léegi août bi eh, ñi ñoo jëlagum joueur du mois donc euh, ki nag di Rashford jël na ko ñetti yoon des na ñeneen ñett yo xam dañu xamul ku koy jël muy mars avril. ak mais mais aussi Boy bi ngeen gis ni ah aussi di Carlos Borg nek Boy pépite aussi du côté de Manchester City mom ci euh, donc jeunes Premier League bu bu jeunes mom mo moo daal di jël joueur du mois également c'est un joueur très très très talentueux boy, bi Borges c'est un joueur bo xamné gaay machallah quoi Li na gars yi euh, joueur yu ëpp 20 ans yi nga xamné gaay gars ñu moo plutôt joueur yu dugal plus de 20 buts mais boy c'est la plupart aussi ils ont 20 ans moins de 30 ans en tout cas gis ngeen ko Hollande Mbappé Rashford Valencia Lewandowski Ramos Salah Ben Yedder Teremi Osimhen Mario ak Sam ñoom ñoo ëpp lu ñu dugal ki nak di Harry Kane Harry Kane actuellement aussi qui est Eric Ten Hag dal moom la jël def ko priorité en attaque donc dafa bëgg benn neuf de pointe pour ñëw aussi mën a gën a jox liberté euh, Rashford et tout donc Harry la daal di ciblé mais aussi ciblé ne beneen joueur buy Barça muy kii di Frenkie de Jong Frankie de Jong également bokk na ci listu kii di Eric Ten Hag bu Manchester United moom mi nga xam ne donc dafa bëgg yàgg bëgg booy bi parce que depuis ba nekkee woon Hollande ba léegi mu la ko bëgg donc mu daal la bëgg a recu récupérer Perisic nag également donc selon certains euh, journalistes italiens et médias italiens nee nañ moom daal fi ne dafa bëgg a Tottenham dellu Inter de Milan Perisic le croate bi nga xam nak Inter la jogué ñëwoon ci fi nga xam mooy Tottenham donc première saison bi début bi baaxoon na mais après kenn gisoo tuko ñi di wa Real Madrid également génn nañ seen liste pour championnat bi gis ngeen ne ki di Alaba bokku ci gis ngeen ne aussi ki di euh, Ferland Mendy bokku ci gis ngeen ne ki di Karim Benzema Benzema aussi euh, bokku ci Benzema bi nga xam ne gars yi mi ngi commencé inquiété bu baax a baax baax wa Real parce que nee bu jouer ben match gañu bu jouer ñaari match gañu et tout moo tax daal ñoom ñu ngi jéma xol aussi comment faire pour trouver ben doublure à Karim Benzema bi nga xamné nak ah Real moom par coloré mënuñu ko jaay mais aussi Benzema il a fait un jour une saison exceptionnelle l'année dernière c'est un grand joueur mais aussi Real ba légui mi ngi xalaat indiwaat kii di Zinedine Zidane Zizou parce que Zidane aussi relation yu baax la am ak euh, club bi ba légui et tout te moom kenn dàq ko moom moo bàyyil mais euh, en tout cas il y' a aussi Raoul bi nga xamné il est là moom yàq yàkkamti na yàgg naa reefe yor Real de Madrid équipe A bi ki ngeen gis également di Diaz hein, hein Brahim Diaz momi it dañ doon wax né ben moment wa Maroc bëgg nañ ko mais selon les informations données par quelques médias espagnols né nañ tamit wa euh, Espagne présélectionné nañ ko maintenant est ce qu'il va partir avec l'Espagne ou venir avec le Maroc lol dal après nañ ci xam lu leer ki nak également di Nuno Tavares mom nak ñi di wa Marseille selon la Provence yene kay bi de la Provence né na dal duñ ko daal di téye la Provence ñu na confirmou quando era <clears throat> Nuno Tavares gay duñ ko téye dañ koy bayyi mu dem keneen ki xam ne aussi nag fi mu ne nii dañ ne ko ñëpp ñaanal parce que aussi c'est un grand défenseur muy kii di Karamboj Karamboj amul amul club ba léegi dafa demoon di entraîné ak waa jou équipe bu mu nekkoon Anderlecht ci U23 yi fi mu ne nii nag gars yi mënatuñ ko même entraîné donc fi mu ne nii day delluwaat toog di xaaraat ah ñu ko ñaanal mu am club kooku di Karamboj Mbodj kii nag également di Mbaye Diagne l'enfant des HLM Mbaye Diagne le buteur centième match en euh, heure kii Super League turque kii di Mbaye Diagne Mbaye Diagne boo xam ne pour man nañ ko jox chance am ko jox chance am Mbaye Diagne c'est un buteur man su ma amoon lenn rek li ma koy suggéré mooy communication am nga war gën liggéey encadrement mais xol bu baax la mën na fubal gëm na boppam te aussi dafa yéene ñëpp jàmm quoi Mbaye Diagne donc ñu koy ñaanal bonne chance mu continuer gën a prouver ñëw Sénégal aussi ñu may ko opportunité parce que c'est un vrai vrai lion ku bëgg Sénégal la Mbaye Diagne jaajëfat waa mais également que dire de Malik Daf sama entraîneur da man sama sélectionneur da nga nii waa ji day def liggéey bi taf taf il fait le taf Malik Daf taf taf moom nag nee na waa Gambie suñu frère lañ comme li ma wax suñu doomu ndey lañ ñoo bokk jàmm lañ ñoo bokk dëkk et tout donc match bi match suba la am nañ défense baax am nañ attaque baax ñun nag mosuñoo xalaat euh, dem pour perte certes amuñu pression ci match bi dañuy dem pour d'or dañoo ñëw pour gagner final bi mais ñu respecté Gambie lañ donc match bi matchu euh, fair fair play la matchu jàmm la comme ni mu ko waxee ñu nag ay Gambie Gambie duñu ay noon dañuy gaf ni di rek mais tey lu jot Gambie jot Sénégal lu jot Sénégal jot Gambie dañ ko jappé non mais aussi waxna ci ay pépitam ku si mel ne Pape Demba Diop néna Pape Demba Diop presque comme même profil que euh, ki nga xamné ne donc Lamine Camara moom Pape Demba Diop jamba lañ ko former néna centre de formation baxlo aussi et que néna na bi ñom ñëpp ñi ngi progresser et que day ñaan demain ñëwaat di dugulat mais aussi fini ne Europe gars li ñuy ciow ban wu kii Bayern quoi nee Bayern nan lañ mën amé amee jour yëpp teg leen ban gagné Paris Saint-Germain donc actuellement dal gaay lolu mo moo indi coow bi du côté donc de l'Europe ñi ngi naan ñabri Sadio Mané Sané ay ñom Cancelo ñëpp tok ci ban bi hein ah, néna day wone également puissance bi Bayern am te gaay duñ ko souralé nee nañ Bayern équipe bu baaxa baax la am la chat la chat la chat notamment José Mourinho yéen a ko dégg mu ne joueurs yooyu noonu ah kenn rek doyoon na ci Paris Saint-Germain man bu ñu ma joxone kenn rek tamit baxna donc di wone aujourd'hui que l'Europe a les yeux rivés sur Bayern yalla na leen ji gaay yi les informations que je voulais vous donner wéy de like wéy leen vous abonné une spéciale vidéo sur les U20 gars yi vous xaar partager. Bon, ko on avance ensemble dans la magie de eSport TV jaa Jeff.